waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar cappaatuli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le 25 lay doon le 25 novembre stade Iba Mar face à face Tapha Tine Boy Niang incha allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy cappaatuli foo nekk gaana ah Pikine lay déparé ah bus yi kaar yi njaga njaay yi sereer yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëppay dem gars yi ah incha ñu wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu cappaatuli yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn yëpp tëlu beer tëlu mag di diis i ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah tëngeet barñi gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk corona bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak salaam gars yi ah. ñu dem def ambiance ñu def neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee rek dafay jeex ndaalaan bu dofe rek naa na koy faj waaw dafa leer ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le 25 novembre Iba Mar feesu fees Tafatine Boy Niang le cinq novembre incha allah ñu ngi ci woo fan si yëpp di ci am di jàmm yi xam ñu teel a ñëw dix-huit heures ñëw fees stade bi xam nga Tafatine defati différence incha allah. ayca Modou Faye ziar naa la. waaw Boucar fay naa la. si loolu nag. maa ngi maa ngi. ni bii mooy sa première finale la. Ah? waaw. waa laamu ci sant yàlla bu baax a baax waaw. mais Modou Faye problème bi lan la dem nga si ñaari yoon lamb muy toj lu xew. ah ma ne nga ñaari si lamb muy am problème si yow la wala nu mu demee noonu. waaw du ci man de na yàlla la quoi wala boog amateur yi la wala boog xaw ma daal qu'est-ce a mais du ci man quoi. waaw mais naka lamb ji tey. waaw lamb ji sant yàlla sant yàlla. bu baax nga war xam naa ko bu baax mos ngeen bëri. nañ. la ka ndong. waaw xam naa ko bëri nañ lu bëri. yaa ko daan wala waaw non bàyyi noonu bàyyi ko amateur yi rek. <laughs> waaw mais bàyyi ma ne la bonne chance. ayca merci Baye Boucar. Aïcha la nga ndong waaw delloo ziar borom di door eh, Boucar ziar maa ngi lay bëgg de waaw delloo bëgg bu baax technicien bi waaw gis nga ci loo ne maa ngi rek mais mboot yi ngay mboot gars yi rëy na de waaw gis rek ah, ah. waaw daa mel ni c'est la première fois ngay final waaw ren moom maa ngi door a naa demi final waaw waaw démb quart quart de final ma baare fale aw gis maa ngi door a final yow ak Modou a a na ma waaw non moom xam nga rek mooy ah. loolu quoi sa ah, mag la sa mag la quoi waaw ñoom ah. xam nga lan moo leen moom yéen a bokk secteur daal waaw loolu la kon bàyyi ma ne la bonne chance rek waaw waaw nekk sama sax rek yàlla na ko yàlla def lépp ñaar lay ñibbi ay ca final baa ngi noonu arbitre bi di waaj a sifflé diggante Laga Ndongo ak Modou Faye ñu naan ko ordinateur waaw ñoom ñaar ñëpp ay doomi Niakhar lañ Laga Ndongo ordinateur final waaw ñu ngi ñoom li règlement nangu ak li règlement bañ waaye ñaar ñi aca ordinateur Lagandong ñaari mbër yaa nga ca arbitre baa ngi ak ñoom ku si nekk ñu ngi wax ak yow li règlement bañ nangu aca arbitre sifflé na diggante ordinateur ak Lagandong Ndindor final baa ngi noonu final poids lourd moo féete ndeyjoor aca may nuyu Maadou Jon borom njeejang ma nga ne la toog ma ko nuyu di koy ziar de passage di woo amateur yëpp le 18 décembre sa Jaxaaw Siin fan si kërëb Boucar li TV ñoo fa woote sargal Abdoulaye Ndour nekk ministre conseil à la présidence de la République ñu tegal fa mbëri mise 1 million poids lourd 700 000 poids léger 300 000 animation moom moo ngi mbay ak lum sa Jaxaaw Siin aca lagal ndongo ndiiɗoor mo féete ndeyjoor ordinateur mbaru Ibrahima Diouf mo féete càmmoñ waaw ñoom ñaar ñëpp ñaaxaar lañ dëkk kii dëkk ndiiɗoor kii dëkk ngaan ñaaxaar loolu yëpp biir ñaaxaar bi la rek di waa ñaaxaar yëpp aca final baa ngi noonu diggante laga ak ordinateur ñaari mbër yaa nga ca di nuyu bu deef depuis Sandaga moom ak équipe am yëpp ku si mel ni Pape Faye borom te fisel waaye Djibi fay tamit du ma la mën a fàtte depuis Petersen ak Teng ak Tengej Mor Diouf depuis Petersen patron Mbaye Gouy Gui combat baa ngi noonu diggante Modou Faye ordinateur ordinateur nee na ma mës nañ bëre waaye bàyyil ma bàyyi amateur yi wax laga ndong ne ma ordinateur sama grand la te ne ma ak lu mën taxaw ndam leen ñaaxaar lay ñibi ñu ñëw di ko jogante fii si la c'est mérité fi ñu jógee waaye tamit ñi daanu ils n'ont pas démérité c'est il faut qu'il y ait des vainqueurs et des ñaari mbër yaa ngi noonu nag di nuyu rek maam Waly Sène Fakhamane waaye léegi seen o mbele ngi du ma la mën a fàtte kooku suma waay la Modou Sène borom Touba Business Compagnie borom Lolita borom Golden Boy laga dem na jël ko mu moy ordinateur sol ko ordinateur laga ñaari mbër yaa nga ca ordinateur laga ndongo ordinateur moo féete càmmoñ Laga moo féete ndeyjoor ordinateur dafa mën a tànk waaye Laga tamit daa mën a tànk waaw ordinateur des fois day songu donte boo ko songee mën na bëre waaye des fois day songu day jël tànk Laga lekk mbor boo xamante ni day tànkam bi bokk na ci fooram waaye moom Laga tamit day songu ñaari mbër boo seetloo ñoom ñaar ñoo bokk li ñuy bëre ay ca combat baa ngi noonu waaye du ñu yor rek di jëndoof borom joof yor tey moo géré bi di ko bëggee di ko nuyu di ko ziar de passage mu nekk drapeau Mokhtar Ba borom Djilor nekk architecte nekk secrétaire général bu Comeva ñu koy nuyu di ko ziar de passage nekk tamit candidat à la mairie de Fimela di nuyu doom ndeyam Chérif at Xana Fall borom jur ay ca arbitre baa ngi wax ak ñoom ñaar ku ne am na avertissement arbitre siflewaat na combat baa ngi noonu di nuyu Lamé Star borom Sandaga doom day Cheikh Ndaw ak Baye Gueye Touré Sport Seydina maa ngi ko di ko ziar di bëgg Fallou Touré ak Omar di nuyu waa Touré Sport yëpp Sandaga ay ca Laka daw na ko ordi sol na ko hee Laka ndong ak ordi koy jéem a bay ordi bañ na Laka nga koy ordi bañ na di ko jéem a wëtu Laka di ko mbooti oh ordinateur daan na ko ordinateur daan na Laka see Ibrahima Diouf bi daan na ordinateur daan na ko mboru Ibrahima Diouf baa ngi noonu. waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar cappaatoli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le 25 lay doon le 25 novembre stade Iba Mar face à face Tapha Tine Boy Niang allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy cappaatoli foo nekk gaan ah Pikine lay déparé ah bus yi kaar yi njaga njaay yi yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëpp ay dem gars yi ah allah ñu wax ñëpp ñu jox rendez bu foofu cappaatoli yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn Pikine yëpp tël bu mag di di ci ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 Waxinaan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah Tëngéej Bargny gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk corona bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence ak salaam gars yi ah ñu dem def ambiance ñu def neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee rek dafay jeex ndaalam bu dofee rek naa na koy faj waaw dafa leer ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le 25 novembre ah. Ibomar Diop feesu fees tafaatin booy Niang le vingt cinq novembre incha allah ñu ci woo fans yëpp di ci woo am di jàmm yi xam nga ñu teel a ñëw dix ñëw fees stade bi xam nga Tafatine ñëw defati différence incha allah.